nuyoo bi teg ko ci loxoom di ko xamal ni bis bii suñu bis la ñun jullit yépp comme ni ko waxee woon ci suba murit nekku fi xaadir nekku fi laayeen nekku fi jullit moo fi nekk innamal mu'minuna ixwa innama tarixiyuna amul kon innamal mu'minuna ixwa moo am kon ñu ngi nuyu ñi fi nekk ñépp di wax ni nañ ñépp jàpp ci mbir yi ndax suñu mbir la ñun ñépp ñu tàmbali ko ci bismillah rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ñu jëloon kaamil bi teg ko ci seen loxo ci ndigalal imam kaamil bi noppi na jébbal nañ leen euh, jàng nañ ñetti kaamil mottali ci ñaar benn kaamil bu Mouhamadou Fall tàmbali woon ñu yeggale ko ak beneen kaamil bu imam Baye na tàmbali woon ñu yeggale ko kon loolu moo fi wàccagul muy juróomi kaamil ñu ngi jël xam bi teg ko ci seen loxo bi xurmati rasulillah ñu jàng ko bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin arrahmani arrahim malik yawmi din iyaka naabudu wa iyaka nastain ihdina siraat almustaqim siraat allazina an'amta alayhim xayri almaxdubi alayhim wala dalin alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin allazina yu'minuna bil xayri wa yuqiimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil axirati hum yuqinun ulaayika ala hudan min rabbihim wa ulaayika humul muflihun bismillahi arrahmani irrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi arrahmani irrahim qul a'uuzu bi rabbil falaq min sharri ma xalaq wa min sharri xaasidin izaa waqab wa min sharri nafaasaati fil uqad wa min sharri haasidin izaa hasad bismillahi arrahmani irrahim qul a'uuzu bi rabbin naas maliki naas ilaahi naas min sharri waswaasil xannaas allazi yuwaswisu fi suduuri naas mina al jinnati wan naas bismillahi arrahmani irrahim sadaqa allahu mawlana alazim wa ballaga rasulul karim wa nanu ala ma xala rabbuna wa xaaliquna wa raasixuna wa mawlana min alshahidin allahuma rabbana taqbal minna xadma alquran wa tajawaz ana ma kana fi tilawati min alshahwi wa nisyan aw tahrif kalimatin almawdiya aw tahrifin harfin aw taqdimin aw taaxirin aw siyaadatin aw nuqsaan aw taawilin ala xayri ma anzaltahu aw raybin aw sakkin aw taxjilin xinda tilaawatihi aw kazalin aw suraatin aw sayhi lisaan aw xuufin bi xayri waxfin aw idxamin bi xayri mudxamin aw ijhaarin bi xayri bayaan aw maddin aw tasdiidin aw hamzatin aw aw aw jamsin aw ihraabin bi xayri makaan faktuuhu mina ala tamaami walkamaal wa muazabi min kulli iaani faxfir lana yaa rabbana sayyid yaa rab yaa sayyidina la tuwaaxisna yaa mawlana arsuqna fadla min xarahu waaxidan xaqahu ma al axdaai walqalbi wallisaan wa hab lana bihi xayra walshahaada walbisaarata walamaan wala taqdim lana bilshari walshaqaawati waddalaal waltuxyaan ونبهنا قبل منايا عنا من قفلة والأسلام وأمنا من عذاب الخبر ومن شؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيد وجوعنا يوم البحث وأحتف رقابنا من من النيران ويمن كتابنا ويسر عشابنا وسقل ميساننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأكسنا بالوسط بالوسط جناني وارزق جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ضيان استجب دعانا بخير بخير بخير التوريت والإنجيل والصبور والفرخان أحجنا جميع ما ما سألناك به في الشر والإعلان wasidna min fadlika waasih bi juudika wa karamika ya rahmaanu ya rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad saa'ibi sariati walburhan bi rahmatika ya arhama arrahimin allahuma anfahna warfahna bilqur'ani alazim wa barik lana billayati walshikri alhakim wa taqabal minna innaka anta alsamiu alalim wa tub alayna innaka anta altawaabu rahim allahuma sayyina bi siinati alquran wa akirna bi karamati alquran wa albisna bilxilati alquran wa aafina min kulli balaa'i dunya wa asaabi alaaxirati bi xurmati alquraan wa adxilna jannata ma alquraan wa arhamna jamiica ummati sayidina muhammad bi xaqi alquraan allahuma ijxal alquraan lana fi dunya xariinan wa fi lxabri muniisan wa fi lxiyaamati shafiican wa ala siraati nuuran wa ila aljannati rafiiqan wa baynana wa bayna annaar sitran wa ijaaban wa ila alxayraati kulliha daliilan wa imaaman bi fadlika wa juudika wa karamika yaa akrama alakramiin اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بهناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا جنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضلك القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل عرف من القرآن alaawatan wa bi kulli kalaam wa bi kulli kalimatin karaamatan wa bi kulli aayatin shahaadatan wa bi kulli shuuratin salaamatan wa bi kulli jusin jasaan wa bi kulli xisbin xasanan wa bi kulli nisfin nixmatan wa bi kulli rubxin rifxatan wa bi kulli sumnin sanaan allahuma arsuxna bilaixi ulfatan wa bilbalaa'i barakatan wa bitaa'i tawbatan wa bi shaa'i sawaban wa biljimi jamaalan wa bilaahi xikmatan وبالخاء خلاء وبالداء دونا وبالشال ساكنا وبالراح رحمة وبالساء سلفة وبسين سناء وبسين شفاعا وبالسدخ صدخا وبالدال دياء وبالتاء تعالة وبالشاء سرفا وبالعين حلما وبالخين غناء وبالفاء فلاء وبالخاف خرفة وبالكاف كفاية وباللام لطفة wabil miimi wahisatan wabi nuui nuuran wabil waa'i wulsatan wabil aa'i hidaayatan wabil laami laa'i fil hidaa'an wabil yaa'i yusran wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi taa'irina ajmahin allahuma baligh sawaaba maa xarahnahu wa nuuru maa talnaahu ila ruuhi sayyidina muhammad alayhi salaatu wa salaam allahuma baligh sawaaba maa xarahnahu wa nuuru maa talnaahu ila ruuhi sayyidina muhammad alayhi salaatu wa salaam allahuma bali sawaaba ma xalaxna wala ruma talah ilahu sayyidina muhammad alayhi salatu wasalaam wa ila arwaayi ashaabihi radiallahu anhum ajmahin wa ila arwaayi jamii al anbiyahi wal awliyahi wal mursalin wa ila arwaahi abaina wa ummahatina wa ixwanina wa asdaixina wa asayidina wa masaixina xaasatan wa ila arwaahi jamii al muminina wal muminat wal muslimina wal muslimat axyaai minhum wal amwaati ajmahin amatan wa ila jamii ashaabi al xayraati min al muminin wal muminat allahuma anzur man nazara diin waxsul man xasal almuslimin amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalaamun wasalaamun wasalaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin alfatiha